internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax ñu ngi fii ci saat Ngalandou Diouf bu Rufisque ginnaaw li nga xam ne nag jot na fay xew muy ASC Thiawlène ak ASC Giif yi nga xam ne ñu ngi doon euh, daje euh, ci li nga xam ne mooy demi final fii ci stade bi waaye nag dafa mujjee am euh, jafe-jafe ba ñuy wax ne benn nit faatu na ci loolee tax tey jii ñu bari di ñaawlu fitna gi nga xam ne mi ngi am ci stade yi rawatina ci mouvement nawetaan bi maire bi nga xam ne ñëw na fi léegi ñëw na seet si waaye ñaawlu na bu baax a baax li li nga xam ne am na fi mu ay violence ñuy nemmeeku gis nañ ko démb ci làmb ji tey mu ñëw ci football bi ñu ngi laaj nag ëllëgu sport ci Sénégal ci yan loxo lay mujjee. ngeen ko gisee muy décor boo ay lakk-lakk moo am fii nga xam ne moom mooy ci stade bi chaise ak li nga xam ne moom mooy ay buntu. ci jamono ji nag ñu ngi wax ne fii dafa tàng jë ndax lakk-lakk yi nga xam ne jot nañu ko fetal dégg ngeen sax ñu naan dal bi wóorul fi ñu taxaw ndax gis nañu ne Euh, li nga xam ne rek mooy safara gi ñu euh, taaloon file euh, mu nekk nag ay yàqu-yàqu yoo xam ne am na fi boo ko mënee jël rek Amadou chaise ñu damm teg ko ci suuf yeneen ak yeneen yoo xam ne ay dégâts matériels la ginnaaw ki nga xam ne ñàkk na bakkanam fii ci stade Ngalandou Diouf ginnaaw demi-finale bi nga xam ne rek moo doon dox ci ñaari ASC yooyu leen waaw maa ngi lay fay tur bi Birane Niang. Birane ñi ñëw fekk waaw stade bi li fi xew ñaari ASC ñoo doon football ASC Giif ak ASC Sewlen ñu koy wax Chelsea waaw si diggante bi bon si la histoire am man je veux dire sax bu ñu payee woon attention match bi du am parce que man si si vers deux heures la ma sama copain bi dëkk ngee soo oh, oh, ni ma bon histoire am na si koñ bi pour man sax dañuy annuler match bi. après match yi football mais lii tëngee jëpp ñoo koy métti lu tey parce que ñun fii seddaan nañ fi jour bu ne seetaan nañ fi football bu ne ñu daax a booy fuuf mel ni ay góor mangoom mangool ay kula male ngay gis seetaan nañ fi jour bu ne ay pa boo yëpp ku ne mais lii ma sa fee am te dañ ñu teral quoi dañu ñu teral defaral ñu stade bu rafet defaral ñu pelouse bu rafet ñun dañ ko war a defar di ko fowee yaa ngi dégg tey ñu yàq ak benn équipe ñëw rek yàq loolu loo xamante ni pelouse yi boo ko xoolee est-ce que sax am na kees ñu yàq ak tey ñeneen équipe yi nga xamante ne xeexuñu xuloowuñu dafa la ñuy fooye lu doy waar lu tëngee yëpp di métti lu surtout ñun tamit ñu fi dëkk si koñ bi ñun si koñ bi lañ dëkk sono nañ trop te lii foo rek lañ ko mës a xamee ak rey joueurs yu njëkk yu tëngee ñoo daax a fubal booy fuuf mais daawuñ def lii match bi demi final la woon waaw ñu fubal match bi jeexul sax quoi parce que penalty moo am bit am moon nañ fubal Chelsea amaat sance égaliser ñu tekk si affaire sport quoi mais franchement lii ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu no desoon na des na des na deuxième mi-temps la penalty yi am waa ji dóor ko dugal ko mais ñu fubalaat après le meilleur gagne ku gagne ñibbi déwén am na. mais ñu dégg ne dafa am ay parce que waaw mais parce man boobu maa ngi sama kër taxaw mënaguma si xam dara dégg-dégg rek laa si am nii mais lu man a am mooy débordé woon na débordé boo xamante ni franchement mënuñu weddi ni dara amu fi. franchement débordé woon na ñun ñii di wax ak yow sax dañoo sonn boo déggee ni may waxee parce que sama kër dafa tiim stade mais dañoo sonn. yàgg dund bi. ah daan nañ daan na am mais masul agsi fii franchement parlé franchement parlé daan na am mais masul agsi fii mais parce que loo mer mer mer mer nga sóor ni aska lii ñun ñëpp ñoo ko bokk tey DFC fu mu jëm fan la jëm doy na waa trop ñu ñuy ñaan kilifa yi ñu gën a yaraat njaboot yi. ñi nga xamante ni ñoo yor équipe yi président club yi ñu gën a yaraat njaboot parce que ñun Tëngéej ñun ñoo ko bokk bu yàqulee ñun ñëpp la yàqu tey kenn du wax équipe bii moo yàq wala équipe bi image Tëngéej mooy dem te lii rafetul Tëngéej dëkku football la dëkku football la Tëngéej équipe nationale bu ñëw ànd si génération mais lii du image bu rafet franchement pare ñu ngi koy ñaawlu trop trop. voilà donc euh, di jërë di jaajëfal bu baax a baax donc waa Dakar Buzz di masawu donc ñenn ñi nga xam ne wax dëgg yàlla donc tey jii ne gaañu nañ ci am nañ ci ay blessé ak euh, ñi nga xam ne tamit ñu ngi wax ay mort yu am si li nga xam ne tamit moom mooy rencontre bi amoon fi tey jii fii nii si stade Ngalandou Diouf di am naqar bu rey nag parce que naqar bu rey bi moo di lan mooy que ko xam li nga xam ne tamit mooy goxu maam Kumba am di Tëngéej stade bi toogoon ay at yi at yi at at yi nga xam ne donc amuloon li nga xam ne mooy compétition ñu jooy ko fu ne partout dans le Sénégal fu nekk ñu ngi jooy di wax ne ah ñun doomu Tëngéej kat dañoo bëgg li nga xamante ni moom mooy suñu stade lii mu nekk une patrimoine lii mu nekk une euh, benn bijou ma yaakaar naa ne bijou boobu nag tey war nañ ko war a mun a jël ñu téye ko ñu fonk ko di wax nag ne football fair ak play la parce que li nga xamante ni moom mooy nawetaan donc football populaire la donc dafa war a boole li nga xamante ni moom mooy ASC yi mais tey jii nii ce qui s'est passé man yaakaar naa ne tey jii le responsable responsabilités yi il faut ñu partager ko parce que sooy xool quelque part nos autorités am nañ si part de responsabilité la jeunesse am na si part de responsabilité ndax lu tax ma ne la jeunesse am na si part de responsabilité parce que yaakaar naa ne tey jii war nañ foo ñu ree ku si nekk tey jii ne soo gañee ngeen tàcc ko mu jeex donc mu nekk feex play parce que lii nii maa ngi doon def ay ay ay ay vidéo maa ngi doon def ay live à chaque fois may dénoncer li nga xam ne mooy violence bi am si biir nawetaan yi parce que naa ne suñ ne donc nawet moo tax ñu wax ko mais tey ji nawetaan bi dem ba dugg si li nga xamante ni moom mooy biir année scolaire bi di perturber parce que da ngay xool voisins yi nekk fii nii match su fi amee fii voisins yi du nelaw guddi ak bëccëg lacrymogène guddi ak bëccëg te je pense que loolu war nañ ko mën a éviter donc te dañoo a mën a conscientiser waat encore une fois parce que tey jii nii vraiment c' est c' est c' est déplorable ce qui s' est passé ici au stade Galandou Diouf xoolal ma dégâts fi am tey. bon en fait euh, vraiment déjà avant may commencer di masawu. mbokku tëngee jëpp vraiment mbokku ak lu nawetaan parce que tey li fi jot am vraiment tiis na tiis na te kenn c'est c'est déplorable kenn kenn souhaité wu ko woon di ñaaxaat aussi maanaam sunu mbokk yi sunu moroom yi ñi nga xam ne ñoo fi ñëw nawetaan di ànd ak ASC di ñëw foog ñu xoolaat ni ñuy doxalee parce que tamit football gagné ak pert ñoo ànd soit da ngay gagné soit nga perte soit nga machine donc boo ñëw psychologiquement war nga am préparation boobu quoi bu ko defee boo ñëwee jàmm rek moo fi am beneen affaire bi may déplorer mooy aussi maanaam ñu yor gestion stade bi tey yéen laay yéen laay joxeñ baaraam tuuma bi lii amee si biir nawetaan au moins tey bi ñu ñëwee sécurité bi ñu fi gis doyul si biir bi la preuve booy yi dañu ñëw su encercler gémi yi voilà ñu ñu ñu ñu mujjee ñu mujjee euh, ñu mujjee perturbé wu da waa si biir ba am accès ba si biir pelouse bi loo xam ne du jaarul yoon da ngeen bi ngeen gisee match bi bi mu tolloo fii waroon ngeen utaat renfort ga yi ñëw au moins et puis yo yoo xam ay quart final finale demi final finale c'est des matchs de tension donc pour cela foog ngeen di foog ngeen wasuwaat ak ci wàllu sécurité bi ñun ñi dañuy ñëw dugal suñu xaalis mais nañu waxante dëgg tey nawetaan ku fi gagné benn 500000 nga am mais par jour ticket cent ticket 1000 francs ñaata ngeen di gagné par jour. donc ay millions la voilà leer na nañ jaru sax kii da il suffit de voilà nga xool sar rek nu muy feesee te day fees del pour dire vrai ñëpp teg nañ seen bët donc ut leen sécurité bu jot. waaw li xew tey vraiment ni ñu koy waxee rek si si si commencement bi bakkañ jaru ko. vraiment ñun ñëpp dañu sax bett parce que lii mi ngi doog a am tëngeej déjà man li ma jot a xam. xaw ma nag lii lii lii li ma li ma njëkkeek lii mi mi ngi doog am tëngeej donc constaté woon nañ ko aussi ci ci ba stade de Mbour seen match yu ak ASC Wakaam donc mu doon aussi beneen affaire benn appel bu may def di ko lancé sama mbokk lébu yi à chaque fois man lébu laa comme ñoom Serigne Dakar ñoo ñëpp samay maam lañ mais a chaque fois ñun la ñuy joxañ baaraam tuuma dañ naan lébu yi yaru ñu lébu yi voilà loolu nag il faut que ça cesse jotoon na am fële ñu ne dootu fi amati tey tëngeej suba. peut-être amoon na tamit Bargny feneen ak feneen te ñun bu ñu tëjee stade bi ñun moom la ñu am vraiment moom la ñuy passé suñuy vacances xam nga te lii ñun suñu sag la au moins meilleure équipe euh, meilleure équipe nationale bi nga xam au niveau national fii TFC la. donc loolu rek sag la c'est-à-dire ñun bëgg nañ football te ñi ngi si gars ci man ñi ngi def ay financement di ci dugal ay fonds donc te si biir nawetaan yi la ñu mën a jëlee ay jours vraiment donc de ce fait loolu noonu war nañ ko war nañ si war suwaat ak xoolaat ni ñuy doxalee xool gestion yi te nag di di ñaaxaat sama mbokk yi sama mbokk lébu yi vraiment i faut qu'on arrête quoi nit booy football. soit da ngay gagné wala ñu gagné bu la gagné nag voilà nga dem njibbi si jàmm ak salaam xam ne dañ la mën duma la fii terrain bi ku mën sa morom duma looloo fi am te football sport international gis nañ ñoo xam ne ay milliards la ñuy fayeeku si football mais bu leen gagné dañuy yaruñu kuy kam donc de ce fait voilà loolu laa amoon lu may wax et sécurité daal vraiment yéen waa nawetaan gérer leen ko quoi vraiment. parce que xaalis bi fiy dugg yëpp euh, sécurité war na mën a gën a am ba perturbation bi fi amee ñëpp génn supporter yëpp stade bi ñu mën ko au moins sécuriser parce que ñun ñëpp loolu lañ bokk ak ko ñu jóge stade tamit sonn nañ trop ñu veillé bu baax si affaire yi wasalaam jërë ngeen jëf